koy xëccoo am góor gu silmaxa bu nekk ci wetu marché bi dégg coow li mu laajtee ñu ni ko mbubb mu jóge ci yenent bi la ñuy jaay fekk mu ngi am benn jaam ci biir këram mu ni jaam bi di ko natt ñu ko ab bàyyi boobu boo fexee ba ma moom ko goreel naa la mu jaral ko ko mu def yitte ba yàlla dimbali ko mu jël abbaaya ba ñëw jox ko sangam silmaxa bi téye abbaaya bi ni yàlla yaa bind yonent bi te gëm naa ni jox nga ko barke wan ma barkeem tey ci abbaaya bi maa ngi koy raay sama bët naa gis oh, mu raay ko ci xar kanam bët yi xoole moom it mu gàddu abbaay ba wuti kër yonent bi yaa rasulallah ni ko mu ne ko abbaay bi jox naa la ko hadiya sallallahu alayhi wa sallam أتيت بالأمس يداك وألي من رمد بي دعيت ويتكلم صلى الله عليه وسلم في خيبر المصوب بدي بالماكة كوكو سنة الله خمنا جورم بنان أنا رحمة المهدات من لا ما كبايري رجاء ساد في المعاد nasri Abdou Aziz laal ki ngay wax mooy Muhammad Ahmadun Amidun Mahmudun tudd na maay Asirun Aqibun Ta Yaasin Tayru Tawir Taharun Tayyibu Sayyidu Rasulu Nabiyu Muhammad qaymun jaamiun ki mooy muxtabin mooy muqaffan Sayyiduna Muhammad mooy rasulul malaayimi رسول راحتي رسول رحمتي كامل إكليل مدسر مسمل عبد الله برم برير وار بجميل ويبي بلاي شبي ولاي نجي ولاي كلم ولاي خاتم الأنبياء خاتم الرسل سيدي أجمالين وكان أزجاج جزاك الله خيرا يغسلهم قلقا وقلقا وخير الحزب والإمم egg ci tabe ba summi dàllam julli ci jàkkaam génn fekk ku sant ñang jaar fa toxal dàlli ñu wër wër wër yi gisuñu ko ñu ko yaa rasulallah xanaa jënd beneen waaye bi moom jën nañu ko hmm? mu tàllal ñaari loxoom yàlla ni ko ki jël dàll bi bu dee loru moo tax su ko jaayee yal na nga barkeel njëkk bu dee loru taxul waaye sàcc ak càcc jukko la ci moom yow mii docteur bi maa ngi lay ñaan yàlla na nga ko faj yàlla bu mu sàccati xanaa kooku raw na hmm? wa ida afawta fa qaadiran wa muqaddiran laa yastahiinu bi afwika aljuhalaau nit tooñ la li Chérif doon wax léegi nga ne ko di nga xam ni maa la gën a xaje seen maam Mawlana Cheikh Alhaaji Malick si radiallahu anhu moo ne at takaalubu laa yuaddi illa ila taaddudil kilaab maa la gën a xaje maa la gën a xaje day tax xaje yi bare nee na maa la gën a nite nit tooñ la nga futteeku ñu ko maa la gën a xaje ngeen coow xuloo ko ba koñ bi tane nga mer bind plainte yóbbu police ñu koy wooy njabootam di xam ni ñu ngi koy convoqué imaamu quartier beeg notable yi dajaloo ñaan la ba nga dem retiré plainte bi ne baal naa ko baaloo ko da nga xaw yu ko da xaw yu sutura gor baale ñaar a koy set jël la lay jéggale nee na nit ku yiw piir soo seq ak moom boo juumee ba def ko loo ko warul def yiw gaay tax du la wan ni la def nga ma loo ma warul def yombul de nga seq ak nit ku yiw juum def ko loo ko warul def yiw gaay tax du la wan mukk ni la tooñ nga ma mu ne yonent bi nag ku la tooñ dafa ñàkk jom ay ku jàkkaar la yoo xam ne yaa ku mën-mën baayam ida afawta fa qaadiran am nga kàttanu fayu mën nga fayu waaye wa muqaddiran natt nga sa fayu xañ ni xajul ci kenn faafu anhu jëllaleel jéggaleel mu ni yiwam tax na ku ko tooñ dana yiwe ba du la wan ni la tooñ nga ma moo tax ngeen gis soxna sa daan jël taxan dëkk tax buubi dëkk di ko sotti ci yoonam di jëli salte mbalit di tuur ci yoonam këram mu toog ay bés gisul mu def ko mu làcce ñu ni ko soxna si dafa feebar mu sol dàllam seeti ko loolu fan laa mati fan la amati su doon man maa nga jonkan nan ñaw yal na dee ah ñaw yal na dee waaye lan yadurrukumu illa adan ah shérif lor day fekk mu am fu mu tëdd soxal waaye bu ci amul place jaaltu lahu xubbi makaana shikaayati bëggee mucc ci yëg lor fexeel soxal fees yàlla yàlla soppal yàlla ba xol bi fees ba kenn amatu ci palaas lor dootu fa installé ndax amu fa place dootoo ko yëg tax wa ida fa qaadiran wa muqaddiran laa yastahiinu bi afwika al kilifa day amal njariñ njabootam kilifa day amal njariñ péncam kilifa day teggi lor njabootam kilifa day teggi lor péncam wa ida raximta fa anta ummun aw abun haadaani fi dunia huma roxamaa waaw hmm? mas ngeen gis ku ëpp ku ëpp ndey ak bàyyi yërmande ci seen doom ah mas ngeen ko gis yonent bi la bu ñu dajale woon baay yépp nday yépp teg ku nekk dañu natt sa yërmande ci sa njaboot ñu noppee gis ni seen yërmande diig na seey na ci biir bu yonent bi wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin looloo tax illa rahmatan lil alamin ñaar ñoo seq nit muy ki nangul ba ñëw ak ki la lankal ki la nangul ba ñëw bu sa dënn yaatuwul bu mënul toxu it du fi tooge ñàkk te bu fi toogewul xol bu féex bu naqari sa kër moo koy def ki ñëwagul ndax soppagul du gis lu ko xeemeem loo ba tax muy ñëw moo tax raxma manto yërmande rek nga mën a sol ki ñëw muñ fa mu bàyyi yépp toog fi fi dàqal ko fépp ki ñëwagul di ngéejoo yegg si fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fardan غليظ القلب لانفضوا من حولك lu mu ca teg faafu anhum ah ki ne ci biir kër gi ku matoon doo wut kilifa ku matoon doon sa kilifa bopp kon ki ñëw ci biir kër gi nga yilif ko yilif téeb yilif bi mu ko yilif rek war na la doy sax kilif téeb dafa metti yow mi yilife doo ko xam ne ki nga yilif moo koy xam balay génn tànk balay tëdd nga yenn ko lu mu mën a doon bala koy def am sa ndigal dafa metti mu ne yonent bi boo gisee ñi ñëw jamuñu boo gisee ñi ñëw jamuñu mooy sa dënn gën a yaatu ci ñoom seen kër ndey seen kër baay boo gisee ñi ñëwagul ñi ngi ci yoon bi di ñëw ngéejoo yegg si mooy danoo ñee ñi nekk ci sa ëtt hmm? dañoo ñee ñi nekk ci sa ëtt ñi ngi ci yoon bi di ñëw wa ida rahimta fa anta ummun aw abun haadaani fi dunia huma ruhama wa ida gadibta fa innama hiya gadbatun fi lxaq laa dexnun wala bardaau ñu ne yonent bi not gi nga not sa bakkan moo yéem ñépp not gi nga not sa bakkan moo yéem ñépp sooy mer du pour yow waaye boo yëgee ni yàlla mer na rekk nga mer bëccëg bu yàlla mere rek nga mer wa ida gadibta fa innama hiya gadbatun fi lxaq bare na ku mer di merloo nit ñi te yow yaa mer te xamoo ndax yàlla mer na wala merul te même bu meroon te yow merloowu la saafaraawu la ko lu tax nga di ko saafara mer sa merum bopp ak merum yàlla xàmmee ko baax na moo tax Seydina Ali karamallahu wajha dafa nekk ci xare di si bu sonal jullit ñi mën a xeex am picc am technique naale ko ko Seydina Ali di ko di ko tëru ba jàkku ko yéefar ba daw Seydina Alioune topp ko di ko dàq ba amatul pexe Seydina Alioune xaj ci jaas yi pour dóor ko yéefar bi ni xaax ni ko dëf Seydina Alioune ci kanam gi Seydina Alioune wàccee jaas yi ñu ne ko doo ko rey mu ne su ma koy rey di am bakkaar ñu ne ko lu tax mu ne bi ma koy dàq merum yàlla taxoon ma di ko dàq waaye bi mu ma tëflee nag sama merum bopp a dugg bi ma koy dàq merum yàlla taxoon waaye bi ma bi mu ma tëflee nag sama merum bopp dugg su ma ko coroon du ma ko cor ngir yàlla dama koy cor ngir faj sama naqar yéefar ba sukk ni ko ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci lay wi yàlla wa bi xayri jalabal wara waliman ajabo naylu xayru mara mawdani wa bi ma rahmatin min allahi linta lahum dënn bu yaatu moo tax ñi ñëw toog ñi ñëwagul ñu ci yoon bi di ñëw su meree rekk yàlla mer fi waaye du mer mukk ngir boppam tax keroog muy joxoñ naafeq yi ci biir jàkkaam di leen joxoñ di leen lim ba nu ëpp ñeent fukk Seydina Omar bi génnee jaasi ne ko bàyyil ma rey leen mu ne ko déedéet yàlla reyloowu ma leen tey gis nga yàlla ki muy booleeg jaamam yi da koy seet da boo xam ni ñëpp yóbbu ñëpp safara ku ko bootal jaam yi ci mbootu yërmande la soxla waaw waaw wa ida radita fa daaka fi mardatihi wa rida alkasiiri taxallumun wa riyaau ko yow amul amul lu lay bégal ci sa bopp déedéet waaw soo bëggee yow rasulullah rek ñu xam ni yàlla bég soo bëggee rek ñu xam ni yàlla bég kilifa bu ràngoowul yooyu ñaar du mën defar péncam bu ràngoowul yooyu ñaar du mën defal péncam bu mu fajal boppam mukk bu mu mer mukk ba fajal boppam bu mu raayal kenn gannaawam na déglu yàlla su yàlla meree nag ah mer jot na ku merul rek doo jàmm waaye su yàlla béggee bég jot na ku béggul rek am na leneen lu fas ci sa xol wa ida xatibta fa lil manabiri hizzatun taaru nadiya wa lil qulubi bukaau ñu ko gaañu bu ñuy wax nañu xaar ba nga noppi bu gaa yi di wax di discours ak di xutba nañu xaar ba nga noppi yow rasulullah kon lu ko moy bu ñu tàmbalee nga tàmbale seeni i géew vide ñu bàyyi grand place ya bàyyi marché yépp daw wut si la ndax xam nañu ni li leen di jariñ àddina ak àllaaxira yaa leen koy jox kon lu tax nag nga wuutee gaa yi mooy yow booy wax xol yi ngay adressé sa xol yi ngay waxal direct lu la ko may mooy li ngay wax xamoo ko yem ci danga ko dund hmm? jàng ko xam ko wax ko ak jàng ko dund ko doog ko wax bokkul ki ko jàng rekk di ko wax te dund ko ci nopp yi lay dugg génn fii dem waaye boo ko jàngee jëfe ko dund ko nag ci xol lay génne dugg ci xol moo tax wa ida xatabta fa li manabiri hizzatun su ma taxaw ci min baram di xutba di wax min bar baa koy njëkk yëg moo tax nga gis mu dem ba ëkk ëkku tàndarma ba mu daan teg loxoom di buy xutba bi jamono soppeekoo ñu change ko indil ko lu jamono ëkk ga di onk ndax moom sax ci ñuy déglu daan déglu yonent bi la bokk moo lay wax ni la yonent bi làmmiñam waxul xolam ak ruuxam ñoo doon wax sallallahu alayhi wa sallam hmm? moo tax balaa ngay waar nit ñi xaaral ba pare ci sa bopp suñ cheikh neen najaayam alaaji Ousmane Kan mooy ko waxoon ni ko seex fii ngay gis ku naan day yee nit mi day yee nit ñi topp nit ñi géew bu nañu tantal ko mu ni day yee nit ñi mu ni du yëg lu dul nit ña mu doon naan da leen di yee def nañu ko njeganaay ba tëdd di xaraam moo tax seen maam Mawlana Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu anhu imam imam leen di siyaara fa toog rek naaru gànnaar ba dégg ñuy soow ku ñuy wax Malik ibnu Usmaan ca Sénégal ñu naan xam-xam ba ragal yàlla cër dégg ñuy su tudd yeneen kilifa mu jóge gànnaar jaar Podor ci alxaaji Baaba Njong góor gi teral ko ne ko dafa am lu ma bëgg mu bëgg nga introduire ma ci ku ñuy wax Malik ibnu Usmaan alxaaji Baaba Njong introduire ko mu ñëw gane Maodo def fi diir dégg beneen kilifa dem gane ko def fa diir jóge fi ñibbi jaaraat Podor alxaaji Baba Njong ni ko waaw fan ak fan nga dem wax ko ko mu ne ko ñaar ñi nga seeti woon nu leen wuutale ni ko Malick day xalabal xaal ki ñuy wax Malik dafa noppi ci boppam doog a génn ci nit ñi moo tax nit ñi duñ ko soppi fastaqim kama umirta ja def na ko mbubb bu ñu ko nattee ci moom du ëpp du yées mooy toppal joxoñu yàlla bul faale nit ñi ni ko Malik noppi na ci boppam door a génn ci nit ñi ki ci des nag xale betul xaal ki ci des nag am na mbooloo mais pareegul ci boppam moo tax mbooloom bis dana ñëw lu naqari yàlla ci diine ñoo koy def ndax balaa ngay balaa ngay pare wala ngay wote mbooloo xaaral ba pare hmm? yaa ayyuhan nabiyyu inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadiran wa daa'iyan ila allah yëpp xam nga lu ma ci neex bi isnihi ku woote te yàlla joxu la ndigal woote xam nga looy def sa mbooloo bu tayee nga ànd ak ñoom ni weex na tàll ñu ni tàll bu subaa nga ànd ak ñoom ni ñuul na kukk ñu ni kukk gannaaw suba ñu gis ñu géewal la dina tëggal di tàccu ngay fecc ngeen di fecc ba ànd tàbbi ci kamb ndax bi isnillahi ndigalu yàlla bi duggul seen maam nag mursal la dañ ko déclarer avant muy ñëw cëru yonent bi la yonent bee ko féetewoo ba mu jeex yonent bi lu mu am yéene na ko Cheikhuna Tijaani moo tax moo tax ñu annoncé ko Seydina Cheikh fal ko te ganeegul àdduna bëggul mu rëcc ko ndax bu ko amul ci tariqaam wóoru eh, wóorul de ñàkk Malick ci sa tariqa wóorul ah, moo tax mu ni dama naroon liggéeyal yàlla yonent bi ba làq seen ngërëm te duma dugg ci benn tariqa man Malick mu ni te mën naa ko <laughs> Chérif dafa nice dafa dafa sopp la <laughs> أرى مالكا في سلطة من جلالي مولو ومن عجزه ومن عجزي حتى استقرت بحالي ولكنه سما مولو باسن مام شيخ سيد الحاج مالك ولكنه يستعمل العقل دونها وهو العرب الأقوام ما في الجلال مواهب تأتي تارة من إلهه وأخرى أخرى من الأقطاب أم سلك خالي أنا كبك سيد الحاج مالك سي سلاسل الصيغة من صفاء الزبرجدي min sawaay zëbër jëddin ila sayidil axlaaqi yowma ila sayidil axlaaqi yowma tisaali Maodo Zaki wa azka man yura min lidaati sama Maodo وفي الأوضاع من سما من رجالي جزاك الله خيرا فما شاء من علم وما دار من يد وما دار من يد المولى وما اختال من مجد وما اختال من مجد فدون اختيار فدون اقتيادي سيد الحاج مالك سيد ولايته تبقى مدى الدهر بكرة والله والله تصان لا الأسرار بعد ارتحالي مولو سل الناس في أقطارهم أن جادي كما جاء شبلي بسير كمالي بعد ما غبت وجوه الدهر منبسط لنا بفيدك والتيسير مسرور أبدا ما حبته دهر منبذل ولنا بفيدك وتيسير ففضايونا لنا بفيدك بفيدك محمد منصورنا لنا بفيدك والتيسير مسرورنا بفيدك بفيدك xalifa bi baayam ne lana bi faydika wa taysiru masrudo wa ida qadayta fala irtiyaba ka annama jaa alxusuma min alsamai qadaa atte yombul atte yombul nu yenent bi sallallahu sa jug ko tax na soo dee atte ñaar ki nga jox dëgg te mu moom ko du bëggee victoire ba sa jug ko yow mi ko doon attee koy dàqal ba bëgg mel ni yow moo koy tere nelaw ki nga xañ dëgg te mu xam ni moomu ko xolom du ñagas ni nga ko considéré ni nga ko respecté ba atte ko mooy tax du yëg naqaru xañ gi ko xañ dëkk fan lay jaar ba mel ni yow moo koy teree hmm? Hmm? wa ida qadayta fala irtiyaaba ja al xusuuma min alsamaai qadaa u moo tax boo attee ñaar ba noppi ki am dëgg ki ñàkk dëgg yépp ku ci ne am nga satisfaction da di jukko moo koy def ndax li Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiallahu anhu wax ni procès Seydina Ali ak Seydina Muawiya mu ni moom yàlla wal na ko ko ca barzax moom Omar ibn Abdul Aziz mu ni yàlla wan na ko xuloo Seydina Ali ak bu Muawiya seen àtte ba ca yowmal qiyaam yàlla wan na ko ko ci gént ñu ni ko nu mu demee mu ni Seydina Ali moo jëkk génn tribunal journaliste yi dékk micro ni ko nu àtte bi deme mu ni xuddiya lii xuddiya lii joxeef na ma dëkk nee na ni tuuti Muawiya génn ñu ni ko nu mu demee mu ni xufira lii jéggaleef na ma ku mën àtte pire noonu ngay def lu tax bu ñaar amee problème dem ci yoon ki tooñee ki ñu tooñ ku ci ne da ngay wut avocat mais xanaa ki am dëgg mën na wut avocat pour mu plaideel ko pour mu jot dëggam mais ki mu wóor ni moom amul dëgg lu tax ñu koy wutloo avocat xam nga lu tax dañuy bañ ñu ñu ñu àtte ko daan ko lu ëpp liñ ko waroon daan ah, dañuy bañ ñu àtte ko topp coxor ak bañ ko wala ëpp ko doole ba teg ko daan yu ëpp yi ñu ko waroon daan ndax ñu wutloo ko avocat pour lu mu ñàkk-ñàkk dëgg ñu jëflanteeg moom te bañ koo xañ bañ a bañ a bañ a jéggi bañ a jéggi day wa hmm? ida xamayta almaa lam yurad walaw anna alqayaasira walmuluuka dimaau Chérif Shawqi yi du nit da nga ko wax ci wulidal huda فالكائنات الضياء وفم الزمان تبسم وسناء وتمد علمك للصليم ضاريا حتى يضيق بيدك السفاء في كل نفس من سطاك ما بتن wali kulli nafsin fi nadaka rajaahu jërëjëf war rëhyu lam yundal muhannadu duunahu ka sayfi lam tadrib bil aaraahu lam tudrab bil aaraahu yaa ayyuhal ummiyu xasbuka rutbatan fi rabbika al-ulamaa jërëjëf wa idaa xamayta al-maa lam yuurad yonent bi sallallahu alayhi kuy dénkaane ba dénk la nga dem tëddi nelaw te xam ne la mu la dénk dana mujj mu njàmbaaru fonk ak aar la ñu la dénk tax na bu dëkk bi yépp maraloon benn teen am fi buur yi am doole àdduna bu ñu maroon ba mar di leen rey it ñemewuñu songu teen comme yow lañu ko dénk kon loo sàmm mu mucc lu ñu la dénk mu raw hmm? wa ida ajarta fa anta baytullahi lam yadxul alayhi almustajir anaahu ni ko ku jàq ba dugg sa kër ricc nga xamee ni kaaba ga wa man daxalahu kaana aminan waaye mën a def ba ñu dàq la da nga daw dugg ca kaaba ga rek rëcc nga dañu rus kaaba gi ñu ko waaye yow itam ku jàq ba dugg sa kër rëcc na ku mu mën a doon boo ko toppee ba gis ni sa kër la dugg mu ormal la ñu ko ñi la gëm ormal nañu la ñi la weddi sax ormal nañu la wa ida malakta nafsa qumta bi birriha walaw annama malakat yadaka shaabu nu yonent bi yaa tedd ku tedd bant sax du ko xeeb ndax wa in min cheyin illa yusabixu bi xamdi bant sax du ko xeeb xamul am na ñoo xam ne garab ñemewuñu ko dagg ndax sàbbal ga muy sàbbal yàlla xamuñ ba nga waxtu lañ koy dagg ndax bu jotee rek ñu demande yónnee eaux et forêt ñoom ñu ñëw dagg ko seen affaire la ñoom ñoo xam am nañu maam xam ni dégg naa ci Serigne Cheikh mu ni pepp suuf bu ne tur yu muy sàbbaale yàlla yàlla xamal na ko góor boobu te góor gi dañu ko wan ni que li nga soxla doon taalibe Cheikh Al Hadji Malick moo la koy may te pepp suuf bu ne xam na lu muy sàbbaale yàlla su masaan soxla boppam pour tour ndox day sonn waa këram dañ koy yërëm day yor satala bi taxawaalu rek du ñeme du ñeme jonkan fenn ndax suuf saa ngi sabbaa fan lay mujj satala ndox bi ñooy ànd ñaari ndox yee ànd di wàcc mu nu yonent bi àgg nga ci orman li yàlla bind bëy bëy sax boo ko yewee sa kër respect bi ngay jox nit ñi nga koy jox ndax lekk na ndax naan na ndax fa muy tëdd set na wa ida malakta nafsa qumta bi birriha walaw annama malakat yadaka shaa'u koo am teral ko bàyyi ma yi nga am sax danga leen doon teral sa kër ay sëñ bi loolu mooy jukko loolu mooy jukko wa ida btanayta fa xayru zawjin ixratan wa ida banayta fa xayru zawjin ixratan wa ida btanayta fa dunaka al abaau ni yonent bi bu ñu dajalee woon góor ñëpp ci pénc dajale jigéen ñëpp ci pénc ni jigéen ju sa jëkkër neexul changel sa jëkkër ñëpp yow lañuy ñuy topp ah yi <laughs> ñu ni ko nañu dajale góor ñëpp ak seeni soxna ci pénc ñu ne eh, yàlla nee na jigéen ju ne bu la sa boroom kër neexul may na la tey nga tànn ku la neex joxoñ yépp ci yow lay jëm si wa ida banayta fa xayru zawjin ashratan wa ida btanayta fa duunaka al abaau bu ñu dajale woon doom yépp ci pénc ak seeni baay ni doom yi eh yàlla nee na may na leen ku ci sa baay bi la jur neexul tànnaatal beneen baay jur la yow la ñuy tànn nga jur leen ah wa ida saxibta ra al wafaa mujassaman fii burdika al asxaabu wal xulataa sàmm kóllëre am considération ci ñi nga àndal am respect ci ñoom hmm? mu ni ko waxuma la ni waxuma la ni ñi nga àndal yëg nañ ko ci sa jëflanteeg ñoom waaye manto ba sol sax wàlla nga ko sa manto sax ñu ko xoolee xam ni manto bi rek loolu reflété na ci manto yaru ba sa mbubb yaru matal kóllëre ba mu feeñ ci sa mbubb hmm? wa ida axasta al aw ataytahu fa jamiu ahdika zimmatun wa wafaau ak a jafe rendez-vous ñu ngi lay ñëwal dix heures dix heures moins fekk la ngay fëgg bunt bi